waaw ngi sant yàlla dañoo ñëwoon ci cadre suñu coalition Yewwi Askan Wi gis ngeen kilifa yi ñu àndal yëpp ñëw def li nga xam ne daanaka euh, daanaka lu war la ci senegal ci jamono ji saa suñ ci tollee Sénégal yëpp day riir ñëw ut si Touba ngir màggal ak ziyaara euh, jëf ju rëy ji nga xam ne mooy jëfu Cheikhul Khadim donc du tey mooy gulet lii différence bi mooy tey dañoo ànd ak délégation bu gën a yaat ndax ci diggante bi coalition taxaw na am mbégte trop di ñëw fii ndax suñu fiy ñëw dañ fiy fekk si suñu sëriñ fekk fi suñu maam fekk fi suñu kilifa am mbégte trop di fi ñëw ndax saa suñ fi ñëwee jëlee fi lu am doole dañuy ñëw déglu dénkaanewaat suñu bopp sàkku yeesal suñu yéene ci réew mi waaye dañuy ñëw it taataan déglu ci lu ñuy jox ci ay conseil ay recommandation ay digal ak ay tere ndax suñuy kilifa moom tànk ñu ngi wax ñu leen di dégg te di góorgóor ci li ñuy sant rek defe naa njuumte dina néew nit matul waaye tànk ñu ngi ci loolu njuumte dina néew moo tax wax ji nu munti ñëwee rek dañ koy jëlee noonu te xam ni ñoom defar rek moo leen tax a jóg amuñu benn benn ambition personnelle amuñu lenn loo xam ne lu ñuy utal seen bopp lu defar réew mi rek lañuy ut kon ñëw nañu euh, sëñ bi teral nañu yaatal nañu délégation bi sëñ Abib si wax na ci turu délégation bi yëpp sëñ bi waxtaan ak ci ñun ak ñun dénkaat ñu li nga xam ne euh, mooy ay ndénkaan yu am solo te lépp jëm ci lu baax ak luy defar réew mi luy andi jàmm luy andi dal waaye lépp jëmit ci loo xam ne day gën a dëgëral kóllëre yi nga xam ne ñun am nañ ko suñu kilifa diine ndax wax naa ko fi waxaat ko fi waxaat ko fi euh, bu du duloon ñoom làmbaay ñaaw na fii ci senegal kon ñooñu bu la bu ñu yàlla mayee loolu te mu manqué ci réew yu bëree bëree bëri wala peut-être sax mu néew réew yi mu am dañuy yokk fonk leen gën leen jox cër di leen déglu te loolu tax ñëw tey bi amoon na solo ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla mu yokk ko ci wér-gu-yaram yokk ko ci mën-mën yokk ko ci xam-xam yokk ko ci am-am ndax am-am bi du pour moom sax waaye naal yi nga xam ne am na ko rawatina université bi nga xam ne lu ama am solo la ci li war a defar nit dafa laaj am-am yàlla na ko yàlla yokk ci bopp bépp fànn ci fànn yooyu yàlla bàyyi ko suñu kanam lu yàgg yàgg yàgg yàgg di souhaiter sénégalais yëpp nag di ko souhaiter àdduna bi yëpp di leen souhaiter un bon màggal yàlla na màggal gi doon. Euh, màggal bu gën a màgg ci màggal yi lépp liñ fi ñaan yàlla ñu ko yàlla nangul lépp li nga xam ne euh, euh, lu ñu soxla la ci luy defar réew mi yàlla na yàlla boole ko ci ñaaniñ fi ñaan lépp li nga xam ne luy gën a dëgëral diggante sénégalais yi la yàlla na ko yàlla ñu ngi ko nangul ci may màggal ci màggal gi ak ñaaniñ fiy ñaan waa fii du ma fi wax politique loolu moom ñëpp xam nañ ko ci man ëttu sëñ bi duma fi wax politique donc loolu bu ñu demee ba Dakar bu soobee yàlla dañ ci tontu jërëjëf